ci fi ñëpp war a ñu watu leen fi nuyu bu baax euh, imaam sëñ Yaafe nuyu sëñ Abdou Lahad Bousso mii moom sëñ Thierno nuyu sëñ Abdou Lahad Bousso mii mu feggoon moom maanaam feral ñu bari ci <laughs> bu baax sëñ <laughs> Abdou Lahad asta <laughs> euh, di leen ziare bu baax xam naa ni fii moom barabu sëñ Touba la waaye sëñ si di bari na fi wëllëre lool ak i xarit ak njaboot. Eh, ziyaare bu baax nag tey ki ñu yónni muy sëtub sëriñ Saliou waaye di taalibe Serigne Touba nag yàgg jokkoog waa daayira Muxaddamatul Xidma nee naa ko bunt yi nga ubbi tax na sa nawla yu bari di ko def loolu lu baax la eh, muy soxna maam Faati Kebe moom soxna waalum Serigne Saliou wax ni daayira bii ay càmmiñam ay bokkam dañ fene nekkal leen fi ñoom ndax fii ñu leen ñëpp lañ fi nekkal ñëpp fi waroon na ne waaye ñoom ñu wutu fi ñëpp eh, di wax nag daa jàppe boppam ni sëñ Tuubaa moom kenn mënu cee jariñu te danoo ab taalibe ndax li mu yor ak taalibe rek a ciy maye ak taalibe rek a ciy jariñe mu jël taalibe ga waajuram wu góor wa amoon ba doomi Serigne Touba ja joxoon ko taawam bu baax ba muy El Hadj Mor Talla Kébem euh, nekkoon mur saadix fonkoon njabootu Serigne Touba gépp waaye fonkoon alxuraan nekkoon wëllëreew sëñ Mor Mbay si Cissé lool waaye nekkoon taalibe Serigne Touba bu dëggal nag ba ñëpp xam ko. looloo waral mu am mu mën a am ay sët ay njaboot goo xam ne sët sëñ Tuubaa la ñuy doon yàlla dogal nag mu yor taalibe googa yor bëgg sëñ Tuubaa gi nag ci Serigne Saliou ak Soxna Waalo di taabu Soxna Waalo doon taalibe bu Soxna Waalo nag jàppee ko ab sëriñ Soxna Waalo jàppee ko taalibeem bi nga xam ne moo jiitu ci taalibe yëpp sàkku ngërëm moom yàlla ko yàlla defal mu wax ni dafa indi woon addiyam ak barkeeloom ci at mi ni mu koy defee at mu ne bii du njëg sëñ laat mii rek ngi leeral bokk na ci ëpp na ëpp na ëpp na juróomi at wala fukki at sax mu yokk ñoom di indi at addiyam at mu ne lii nag day loo xam ni lu am solo la ndax feeñal jëf moom lu am solo la ndax dina dégg dina tax ki bëgg lu baax xam ni fii ndekete dañ fiy defee lu baax wala ki xamugul ni muy def ba jokkoo ñoom fexe ba mën a jokkook ñoom lu baax la lu baax rek mat a wane mu indi juróom fukki keesi ndox ak ñaari saaku suukar ak ñetti carton tàndarma ak fukki kilo yu café wax ni nag lii mu fi indi xeeb na ko lool ndax daa jàpp ni we bis bu njëkk ci koor ba bis bi mujj ku fi war a ndogu rek moom moo la war a jox ndogu ñu ngi koy ñaanal ci barkeb sëñ Touba yàlla yàlla faj aajoom ci barkeb maamam Serigne tuba yàlla na bokk ca ña Serigne bi doon ñaan ca war koo liggéeyal muy zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu kon soxna maam Fatou jërëjëf ñu ngi sant yàlla nag ci at mu nekk nga jaarale ko ci ñu indi ko ndax waxuma jëf fi waaye indi rek. tuyaaba la ndax fii moom deesu fi jëfloo yàlla nanguwul ndax borom barab bi yàlla nangu léppam yàlla barkeel léppam yàlla defar léppam kon ku bëgg ku bëgg sa mbir barkeel da ngay fexe bay barkeelu fii ci jumaa ji rawatina Muxaddamatul Xidma ku képp ku bëgg sa mbir defaru da ngay fexe da ngay fexe ba di leen defaral te bañ leen a yàqal waaye ku bëgg sëñ Tuubaa nangu sa biir nag da nga leen di nangul ndax ñoo xam ni kat ñu xëyee ba wàcc ci sëñ bi la ñuy xëy di ci gont ñëpp lañ wóotu fi ñëpp waroon a ne. yàlla yàlla euh, fay leen ci barkeb sëñ Tuubaa ñu ngi siyaare ñu fi nekk ñëpp nag di suñu wëllëre di suñu xarit di suñu sëriñ di suñuy lépp rek ñu ngi siyaare soxna maam Faati di sant nag di ñaanal soxna waalo mu yàgg fi lool te wér ndax lii lépp muy def ci soxna waalo la ko gisee soxna waalo mooy koo xam ni teraanga dafa jàpp ni du ko wàcc mukk ba nii mu magee waxtu woo demee këram fekk muy defi teraanga te alwala du sirru abihi kon nag moom jikkoy waajuram rek la yor mooy soxna waalum Serigne Saliou mooy bëgg teraanga bëgg lu baax bëgg sëñ Tuubaa doon taalibe yor murit ak alaaji Mor Talla Kebe ja yalla yàlla yàlla guddal fanam te wéral ko soxna maam Faati Kebe moo ñu yónni woon tey ci Moukhaddamatoul Khidma addee ji mu baaxoo def koor nekk mu jëm ci ñoom salaamaaleykum wa rahmatullah. bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Euh, sëñ Seex Anta ñu ngi lay nuyu. di la nuyu ci turu Serigne Afia Bousso ak kilifa yi nga xam ne ñoo ko nekkal fii wutu ko fi. suñ ab Abdou bu Bousso Abdoul Moutalib mii mooy secrétaire sénéral daayira Muxaddamatul Xidma sëñ Ablaye Diop mais di adjoint secrétaire sëñ Abdou Lahad moom Asta mi jiite commission sociale et relations extérieures ak man mi jiite commission culturelle yaakaar naa suñ fi teewee danañ mën a jëmmal daayira Muxaddamatul Xidma yëpp am mbégte lool nag ci eh, kàddu yi nga yëkkati ak ki nga xam ne moom nga fi teewal ak eh, ki nga ko waxal ngir fànn yu bëri ci ni nga ko waxee dafa bokk ci membre yi nga xam ne euh, soxna la euh, di sëtub sëriñ Saaliwu sëtub sëriñ Tuuba waaye tamit mm, mu doon koo xam ne bàyyi na xel liggéey bi ci bu yàgg nag ci bu yàgg nga xam ne du tay rek dëgg la liggéey bi gën naa fes nii waaye moom ca ba mu fesagut la ci daa def alalam ba léegi bàyyiwu ko kon nag xam na barab bi Euh, barkeel gum barkeel ak fonk koo xam ne euh, xam na ne sëriñ Tuubaa fonk na liggéey bi muy rawatina liggéey bi ñuy defal sëriñ bi ci koor gi te maam sëriñ Saliou nag moo sosoon liggéey bi moo joxe ndigal euh, ci atum 2005 wax ne nañ ko yaatal te fonk ko te sellal ko jàpp naa ne ndigalam loolu ak kàddoom yooyee barkeel na lool ba ak si fii may wax ak bët bu set lii mu indi di suukar ak tàndarma ak ndox ak kafe mooy yiñ mooy yiñ fiy jëfandikoo suukar rek bu set danañ jëfandikoo juróomi saako ak lu topp ci suukar ba du set daanaka ñeenti junni wala juróomi junni danañ fi doge si loolu nag kon su fekkee ne eh, xamee na ko noonu ba tax mu indi jumtuwaay yi eh, ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax lim ci yéene ak lim ci fàggu sunu borom defal ko ci tawféex ak taysir waaye di di ñaanal tamit soxna Waalo Mbàkke waajuram moom Serigne Saliou ni nga ko waxee léegi moom mi nga xam ne moo ko toqi ci ak mbaax ak bëgg lu baax ak liggéey ak bernde ba tax xelam di nekk ci yu baax yi noonu tamit la nuyoo ay bokkam yëpp Serigne Abo xëy na ren ji lañ ko programmé wut rek waaye at mu jot dala ànd ak ñun waxtaan yi di ko def defin wu am solo ak sëriñ Jiili ak bokkam yooyu yëpp ñu leen di nuyu ñoom ñëpp waaye di ko beral ak cant bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom yokk wërsëgam ak man-manam ba lii mu def at mu jot mu mën a lii di asakaam di la beralug cant yow tamit ni nga ko waxee léegi ngir kóllëre gu yàgg gu dox su ñuy diggante lu yàgg yàgg yàgg du léegi euh, xëy na jamono tisaaroo léegi rek ba xam ne waaye yaakaar naa ne euh, xam nga xam nañ euh, kóllëre gu yàgg yow ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw ci bokk gi ngir foo gis lu baax tamit ak koo am muy ku baax yi nga koy wan lu baax. waaw loolu tamit gis nañ ko te xam nañ ko daaw yaakaar naa euh, xëy na laa fekk nga jàpp ren waaye yaa fi teewaloon sëñ Basiru Xaadim Awa Ba euh, ak sëñ Ablaye ja ci bi indi seen addiye yi loolu lépp euh, fu ñuy gisee lu baax tamit fu koy defee yaa nga nga ca di ca jëf di ca wax kon indi gii nga indi jëf yi soxna Maam Faty yi ci fii ci jumaa jiit njëkkut tey ci yow kon yow ñu ngi lay beral sa cantu bopp bu baax a baax ñaan sunu borom daal mu nangu jëf ji te ful ko. seytaane bañ cee amu yoon te defal ko feex loolu nga wax noonu nag maanaam man sanna sunnatan hasanan fa lahu ajru wa ajru man amila bihi eh, képp koo xam ne def nga lu baax tey soxna képp ku ko roy ci yow danga nga ci am ab yool ak ba noppi du yàq ci sab yool dara te moom yàgg naa jëf ba tax na mm, bëri na ay moroomam wala ay bokkam yoo xam ne danañ gis jëf ji ba tax ñu ciy roy kon day am ca loola lañ def ba noppi am wàll boppam kon daal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm